lolu li presse mo da parce que comme ñun tamu ñu di sos di manipuler il faut avoir des preuves xol le dubbi ni ko dajé xol le rek wala selouri wala ni ko dajé rek ñu non wala wala voilà. Sasa wala wala dugub baa ngi noonu fii la doon duggee seen oto baa ngi noonu numéro baa ngi noonu beneen oto baa ngi noonu bi ñu duggee def li ñuy def ba pare la loolu mooy seen départ li xew démb dafa doy waar ñu réew bu ñuy wax démocratie voilà ñu ngi noonu di départ voilà euh, daanaka démb ci ngoon bi ñu fi nekkee ci suñu conférence des élites